yu Sénégal TV ñu ngi leen di dalalaat jàmm ci seen biir émission Brada ak i Kaas tey nag ñu war a waxtaanee thème bu am solo muy étudiants yi li leen naqari ci biir université yi ndax da ngay gis ne souvent boo nee étudiant rek ci mbedd bi ñun la ñooñu dañoo reew ndax ne dañuy génn ci biti di taal ay pneu di baare mbedd bi li ñuy def nag am na li tax ñu di ko def moo tax loolu lañ war a waxtaanee tey balaa ñoo dugg nag ci sujet bi damay introduire sama ñaari chroniqueur yi ñu monsieur Samb Samb nuyu naa la. waaw ah, fay naa la soxna Nogaye Diagne di rafetlu suñu plateau bi di wax ni aussi macha allah ci dalal bi ñu dalal. Eh, jërëjëf di nuyuwaale aussi mbokki chroniqueur yi ak euh, Ansou Faye. Mhm. merci monsieur Faye yow it maa ngi lay nuyu. Mm, nuyu naa la. Mhm. te di jaajëfal si invitation bi. Mhm. maa ngi nuyu tamit Abdoulaye ma bokkal plateau. mais di remercier aussi suñu mbokk internet yi seetaan. kay maa ngi leen di jaajëfal ci dalal bi ngeen nangoo dal ci plateau bi tey ñu war a dugg suñu sujet comme ni ma leen ko annoncé léegi ñu war a waxtaanee li naqari étudiants yi ci biir université yi te bu ñu nee université ñaari pàcc la am na partie pédagogique am na partie sociale ñuy njëkkee ci partie pédagogique bi monsieur Samb yow mi nga xamante ne ci université privée bi nga nekkee uh-huh. gis nañ ne buñ nee étudiant jàng la léegi déroulement cours yi ci biir université privée yi uh-huh. la moo la ci naqari monsieur Samb waaw jërëjëf soxla na koy ginnaaw ba ñu dalalee ba pare uh-huh. di wax ni tamit uh, mbokki internet yi ma ngi leen nuyu de passage bon li ma naqari ci côté privé mooy d'une part mën naa wax ni njàng mi dañ ko marginaliser ndax njàng mi ci lan pédagogie wax nga ko léegi dafa am solo ci ni comment euh, enseigner. Mhm. dafa am solo lool ndax day tax étudiant bi moom dina dem ba mën a jàng-jàng bu baax. Mhm. mais tey booy jàng ba pare mm, njàng mi des day sooxee ba law ba tax moo waral problème yu bari yi. Mhm. donc pédagogie bi des na lool vraiment te njàng mi aussi da ngay gis koo xamante ni day jàng. Euh, au lieu ñu jox ay professeur bi toog ci classe bi di ko jàngal na mu waree mais danaan ko yoon waa ngi nii te loolu dañoo war a bàyyi yooyu noonu ay yoon waa ngi nii à l'université mm-hmm. ñu la waxati naanaam A plus A égale nangam mm-hmm. dañ lay won yoon wi nga dem non non non première année euh, da ngaa war di saytu étudiant bi ba mm-hmm. deuxième année troisième année nag nga ne ko maintenant euh, tu es assez majeur et vacciné demalal sa bopp nag bu boobaa dina xam kon njàng mi dañoo war di ko teg yoon moo gën ñuy def ay polycope di leen jox ay polycope rek te comprendre ñu polycope fajul dara kon loolu lañ commencé incha allah jërëjëf monsieur Samb intervention bi nga def am na solo dama cee gis sam bopp ndax man boo ma joxee polycope rek pour du ma am kii pour jàng li nga wax am na solo macha allah léegi ñu tourné waat ci monsieur fay moom mi fi teewal waa université publique yi monsieur fay université publique déroulement cours yi lan moo parce que boo ko xoolee mm-hmm. damay wax ne déjà mauvaise condition de am c'est étudiants mhm. déjà nous ñu université publique mhm. donc euh, les cours ne se déroulent pas normalement. Mhm. man dem à chaque fois. d'habitude dañuy wax par exemple semestre manam xam nga dañ ko en deux semestres. dans am premier semestre ak deuxième semestre. mais boko xolé par trois trois trois mois trois mois mais problème fay am ça, pour nga def ça trois mois correct parfois dangay dem ba ay 4 mois 5 mois. Mhm. doo bind sa cours sax ba mu jeex. Mhm. te xam nga lolu déjà boo waxé étudiant rek daa am lo lu wara a inculquer ci mom mhm. muy valeur éducative. boo xamante ne dañ ko ci wara def. mais gis naa lolu légui léegi dafa nek lu manqué. par rapport ak étudiants yi. surtout si université publique yi parce que prof yi dañuy def comme ni leen neex. am na solo bu ñu déggee sa intervention liñ ciy retenir rek mooy quantum horaire bi prof yi duñ ko respecté am waral ndax ñoo ci gis ñu public la dañuy dem privé di xarimat moo souvent duñu respecté wax parce que dañ jaar de ce fait wax semestre lay mhm. mais semestre premier semestre d'habitude tane dinañ deuxième semestre dañ koy après am fu jëm jëm examen déroulement examen ci privé la ci voilà très bien li ma ci d'une part sax euh, des fois nga gis bu dee privé. moy ëpp sens que public. parce que privé man mi nga xam ne na naa ko pendant 3 ans j'ai eu ma licence. Mhm. dans les universités privées. ñom buñ lay défal examen niñ koy déroulé moy sa moroomi étudiant ñoy ñëw di la surveiller te buñ lay surveiller li gëna metti moy ñëw di la teg et eh, diw nangam nangam parce que dañuy bëgg ñu fay leen. Mhm. mais aussi professeurs yi ñom dañuy joxé sujet yi dem seen yoon au ñu woté ni amna problème à part duñ ko wax mm-hmm. dañ lay bayyi dañ nan ay eh, li ma def mon non la xamna ko bu baax mm-hmm. yow nag fa ngay nekk di débrouiller sa bopp parce que xamoo dara étudiant nga yaagi ngi ñew mm-hmm. pour yow ni nga xalaatoon bo amé bac université Cheikh Anta nga wara a dem mais defoo ko euh, yalla nattu la nga dem privé privé d'une part baax mais bo fa démé do xam dara parce que da ngay tumburanke tumburanke bi moy lan do am kenn ku lay jàppale di la won yoon bourse do ko am euh, je n'en parle même pas donc yoy non yé problème yoy non nga koy jànkoontre université kon day metti lool ci ki nga xam ne maanaam dafay jànge kon déroulement yi ni ñuy defee examen yi dafa ma metti lool nan la ma mettee premier deuxième année sama rappel bi may def banque mhm. euh, matière bu ñu naan banque ñu ñëpp dañoo ñëw nous étions cent soixante-quinze étudiants mhm. ñu toog di xaar léegi profu banque bi moom jour boobu itam dafa waroon a defi ji cours benn université bu nekk à Dakar INSUP léegi bi mu koy def mu ñëw euh, jox ñu épreuve ba pare dem yoonam ñu woo ko ni ko am na erreur étudiants yi nañ am na erreur ndekete daa jël Euh, ba mu waroon a jox waa ENSUD même même temps muy def examen. Mhm. dem jox ñu ko ñu wax wax mu ni noonu la par la suite le directeur bi ñëw monsieur Gningue je lui salue au passage mhm. mu daal ni ah Gningue euh, euh, monsieur Diop nañ xoolaat épreuve yi monsieur Diop ni effectivement je m'excuse man maa juum donc épreuve bi du nii léegi gars yi ci lañ mujjee étudiants yi daal di kaas taal ay pono comme ni nga ko waxee. Mhm. battre le macadam taxaw ci tali bi côté université. encombré foofu yëpp ni di dañu def examen bi.

parce que comme ni ko Abdoulaye waxe sànq yaakaar yaakaar ñoo bokk feebar gi. Mm. mu nekk si surveillant yi tuteur tuteurs yi. Mm-hmm. déjà bu dee étudiants yi dañuy def pression si ñoom. Mm-hmm. te déjà étudiant man di def examen ngay def pression ci moom. Mm-hmm. parce que dangay dem ba benn moment dañ koy bouleverser yàqal ko li nga xamante ne mooy concentration. déjà loolu am na ci. deuxièmement d'habitude après résultat. résultat yi bu ñu génnee man fa laay ñëw directement dañuy xool jékki-jékki joxe deux jours trois jours délai boo xamante ne délai réclamation lay doon. Mhm. boo ñëw boo ñëwul durant ces durant ces deux trois jours comme cela veut dire que yow boo amoon zéro sax mënatoo ko rectifier. Mhm. Mhm. rectifica rectification yi tamit benn problème am na si. dañ lay may zéro sinon ñu may la un nga dem sa copie kenn du la ko jox. xam nga bu dee privé yi foofu xam nañu am chance. parce que ñoom à chaque fois boo defee sa exemple pare. di nga jot sa copie. Mm-hmm. di nga xam li nga am. li nga xamante ne tamit dafa manqué. Mm-hmm. di ko am. Mm-hmm. mais bu dee ñun déjà loolu am fa même boo amee zéro da ngay ñëw secrétariat nga ne leen déjà man damaa am zéro. est-ce que sama copie mën naa ko gis déjà sa copie da ko gis. déjà est-ce que man nee naa étudiant bu def épreuve ba pare bind ba mu baax. ba yaakaar ne moom mën na am moyen. nga jox ko zéro mais est-ce que zéro note étudiant la normal. koo xamante ne jàng na ñëw examen def nga jox ko mauvaise moto ñu war ko seetaat bu baax. Mhm. Mhm. doy na waar doy na waar amaana li may rebondir ci li mu wax dafa am yu bëri mu may fàttale ñun moom bu dee département filo dañu amoon benn prof filo africaine. mu mhm. ngi tuddoon Cheikh Mokhtar Ba ma koy nuyu de passage prof boobu moom bu ñëpp meloon ni moom. étudiant dootoo amati problème prof bi moo def de sorte que di wax di wax ba ñu nangu ñoo bàyyi ñu xool copie mais xam nga ñaata copie ngay xool ci matière yi ngay def yëpp hmm. trois copie dañ lay may nga xool te récemment rek bi ñu demee man ak sam benn mbokk étudiant ñiy xool ko copie mi mu xool ñaar yëpp dafa am erreur imaginer bu ko xooloo te UE boobu dañ ko defoon zéro validé wu ko mu xool ko effectivement mu validé ko imaginer bu ko xoolu woon te am na yeneen yoo xam ne xoolu ko am na keneen ak keneen koo xam comme ni nga waxee mu ñëwee ñu ne ko délai bi passé na xoolu xoolu ay notam te dañ ciy def erreur dañ ciy def erreur de mais boo ko gisul après du am moo tax dafa am solo mm-hmm. ki jàng ba nga notifié ko mais xam nga boo ñu la joxee feuille examen da ngay gis ñu bindu note note boobu étudiant bi da koo war a ni comme ça bi mu def après du ko defaat si doguma la sax yàlla bu la dee dog da ngay gis euh, bo xolé juste euh, bala nga ñëw sax ci université bi mhm. examen yi baccalauréat yi BFEM mhm. bi da ngoy xol mhm. ko xamanteni da ngay gis ben professeur bu waree euh, ki corriger ñu war ko fay xaalisam fay ñu ko day jalgati correction bi parce que danaan fay ñu ma sama yon newul sama fils étudiant wala mu am bfm, bu ko amé amaluma ko man na xaalis dugg sama poste rek te lolu moy law ba dem ba enseignement supérieur kon dañu wara xolat surveillance bi xolat aussi manam nit ñi doxale njàng mi ak épreuve yi ni ñu koy joxee mhm. parce que épreuve mënoo koo jox nit ba pare. Mhm. pare mu war a xam li mu am. Mhm. donc bërki démb rek laa na ak benn examen concours police. boo paree la nga defoon doo ko xam. bis ba nga bindee saw tur ak lépp la ca des boo pare kayit yi nañ koy jël sànni ko poubelle. te bu ñu ko sànnee boo amoon 18 ah ñi may la 8 foo koy réclamer.

parce que benn prof moo fa may benn étudiant bu def commentaire def na introduction mm-hmm. def commentaire proprement dit maanaam développement bi mm-hmm. def conclusion bi mm-hmm. mu may ko 025. vingt cinq <laughs> léegi bi ñu ko mayee zéro ba réclamation jot soxna si dem secrétariat def affaire réclamation ñu dem wooyu prof bi léegi prof bi mu ñëwee mu ne ko kii ne daf ñëw ne da nga ko may 0,50. Mhm. est-ce que tu dois peut-être copier parce que 0,25 c'est une note les notes commencent de 0 à 20. déjà copier pour dire, est-ce que maintenant rectificatif sinon affaire sinon élève quand même li erreur li sa erreur mhm. nga exactement mhm. fan nga sinon fan nga comprendre mais si defee examen rek pare nga si mooy ni ko Abdoulaye waxee sànq. doy na waar vu tout ça étudiants yi mënuñoo bañ a génn si tali bi taal ay pneu mënul bañ a nekk dama leen damay ajouter tamit leneen ci wàllu note yi mm. et des fois da ngay gis koo xam ne benn UE bi dañ ko ciy defal 9 75 75 benn 0 25 moo tax yow ngay reprendre UE bi baye saay sax day tax nga reprendre waat te doy na waar yow doy waar pour compenser rek des fois da ngay gis koo xamante day am fële 10 Euh, par exemple ñaari matière pour mm-hmm. compenser leen. Mm-hmm. nga am fële dix fële nga am neuf. ben manqué la. ñu la da ngay reprendre da ngay reprendre da ngay reprendre c'est vraiment déplorable c'est vraiment déplorable mais nak dañuy jéem a basculer toujours ci benen point bi ndax campus bi. social la pédagogique la waaye tam am social. bien sûr vie sociale socialement. dundu étudiant yi nek ci privé bi. très bien li ma métti ci université privée moom moom laa vivre aussi ji.

naan mhm. euh, ventre creux n'a point d'oreille mhm. ventre creux mhm. n'a point d'oreille biir bu ci dara amul loo ko wax du ko dégg jàkka ji bu doon nodd sax bu fekkee daa xiif mënul dem julli ji parce que il faut maanaam la ca biir ba mu jéem a régler biiram ba pare kon étudiant bi bu jàngee ba pare nekk jóge Fongolé bi wala mu jóge Tambacounda amul mbokk ñëw jàngi ba wacc te à université privée mo nan la 8 mhm. mhm. mhm. te nga am midi entre midi et 13h. pour toog concentrer. concentré wu parce que cinq cent bi nga yor mm-hmm. wala nga yor cinq mille jox jox la cinq mille au nga lekk ci mm-hmm. nga koy jéem a économiser mm-hmm. bu ñu waxee ñu ne étudiant bi daa nay nayul parce que cinq mille bi doyu ko il faut que maanaam muy économiser di xam ne maanaam temps biiram la yor war naa mën a lekk bu baax mais lekk googu bu ko toppee biiram biiram fen loo ko moo tax ni ñuy dundee dafa metti étudiant bi nañ xam ne waajur leen a jox sonn na te en général man damay wax gàcce ngaalaama je dis man ça pose sur mais mais les mamans mm. parce que ñoom ñooy yëkkati xaalis di ko jox seen i waajur seen i doom mm. doom yooyu di sonn di xam ci lu ñu nekk te kon dafa jaadu ñu jàppale leen te lekk gi université d'une part baaxul mm-hmm. boo xoolee lekk gi dañ koy jalgati jalgati nga lekk ko bëgg a jàng mënul nekk mm-hmm. nañ xoolaat lekk gi sàmm mm-hmm. xam nga fay looy wax ci lekk gi wala ci social lekk gi moom bàyyi ma def ko de passage rek pour juufeen ñi parce que ñoom moom dañuy casse tout le temps mm-hmm. dañu naan lekk bi li nekk resto mm-hmm. man daal nee naa université ndekki daal laa fa gis loo xamante ne mm-hmm. tane na fa mais à part ça bu dee affaire añ ak reer da ngay mujjee sax jengu rek parce que déjà mooy condition yi ñu ma ko waxee sànq dañoo metti trop étudiant dafa nekk koo xamante ne sonn na mhm. en mën naa wax Sénégal mhm. xaw ma feneen waaye Sénégal moom étudiant def fee d'habitude man bi may nekk ndaw mhm. su ma gisoon étudiant ku nekk étudiant man damay bëgg si moom damay kontaan bëgg a mel ni moom bi ma amee sama bakk yaakaaroon naa ne tekki naa sama àdduna mais mujjee naa xam ne les réalités yi nekk université boo fa jaaree rek di nga xam lu bëri Abdoulaye wax na ko sànq déjà su ma ñëwaatee côté bourse am nga public am man nga am chance am sa bourse mhm. mais tamit da am lo xamantene nit ñi comprendre comprendre ko bu baax mhm. muy lan dañu yaakaar ne ku nekk université rek am nga sa bourse mhm. bu ñëk xeyna amon na waye bu ñu waxe legi doxatu da ngay ñëw gis ko xamantene day ñëw première année man lima gëna naqari dem koy wax de passage da gis ko xamantene da am euh, defis defis la jallé ba ah, bu ñëwé bu ñëwé université du am bourse waxuma la bourse entière mais deux bourses ça du ko une social 60 000. 60 000 même 60 000 c'est un problème actuellement maintenant, naa wax 60 000 daaw. ba mhm. léegi pas jot ñu mhm. année scolaire l'année année scolaire une année est-ce que ont déjà des un seen xaalis. Mhm. la société bi déjà dund ngi ma bëgg xoolaat condition yi. Mhm. parce que étudiant ni muy dundee métti na trop. Mhm. jot na jot na pour état xoolaat condition yi. may ñëwaat rek may ñëwaat ci lekk ji man moom du ma lekk université mhm. jaral na ma ma jënd cent franc bi ak kaasu café naan waaye du ma fa lekk ndax xamal li tax dama la jox benn anecdote dañu mës a ànd man ak sama ñaari copine de classe ñu dem añi ñu ñëwaat parce que boobu dégg nañu rumeur comme quoi que ni lekk yi dañ ci def somnifère. effectivement mais dañoo toog classe moom moo njëkk di dalal ma koy reetaan <laughs> man tam may dalal ku góor ki ñu àndaloon du reetaan mais moom dañoo jig saay moom tam gis ko ci table muy dalal. bien sûr sérieusement de te imaginez yow ku war a jàng nga jox ko mu lekk loo xamante ne añ dafay nelaw mu war a jàng ji 15 heures mu dër di nelaw dafa doy waate pourtant dañ koy wax c'est une vérité lekk yi dañ ciy def somnifère ñi koy def nañ ko bàyyi parce que ku war a université ñi fa nek ñëpp ay mag lañ ku nek xam nga heure bi nga war dala ku nek xam nga heure bi nga war a kon nañ bay somnifère yi ñuy def ci lekk yi léegi ñu virer juste ci benen point muy muy point bu doy war mm-hmm. muy ah, université muy dëkkin bi hébergement bien ndax da ngay gis ñoo xam ne bu sori la ñuy jóge am logement

di weer ci lii bi di toog di ko xool mm-hmm. dëkkin boobu neexul mm-hmm. parce que da ngay jàngi ba wàcc boo wàccee bëgg a jàng wala nga noppaloo amu foo noppaloo di mm-hmm. noppaloo ci véranda yi wala ngay noppaloo ci suuf restaurant yi loolu ba pare te gars yi buñ di leen délocaliser rek loolu moom a gën a metti ci dëkkin bi metti na ñëpp metti na képp kuy nit kuy nit tekki sa bët rek dina la metti age looy rebondir ci côté boobu waaw côté logement bi moom dañoo maanaam affaire bi daa bëri magu yi comme ni mu koy waxee rek entre guillemets dafa bëri maguy trop parce que la plupart mhm. bu dee Cheikh Anta Diop mhm. déjà ñàkkul ay pavillon mhm. ñàkkul ay chambre ñàkkul ñàkkul tamit ay mais d'habitude la plupart des chambres dañ koy jaay déjà Abdoulaye mi nga première année la ñëw droit codifier, mais je bu codifié maanaam kaw ñooy lijjante codification am. ba jaay ko ñeneen. Mhm. dëgg la déjà boo ko xoolee mettre nga kooku dans de mauvaises conditions. Mhm. kon moom day mujj a obligé lijjante fan fan lay jógee. fan lay dëkk affaire yooyu mhm. en tout cas ñu bàyyiwaat si xel bu baax a baax. couloir yi tamit day xat trop. da ngay mujj a obligé même booy génn say chambre da ngay jéggi. te am na loo xamante ne daa rafetul. déjà étudiant exemple la. dañ ko war a jàppale bu baax a baax. Mhm. ndax bu ngeen nekk si condition yu normal. Mhm. mais nag ñiy tëdd si couloir yi en su buñ sañoon duñ fa tëdd. mais comme li nga wax rek dañuy ñëw codifier ku ñëw première année. am na suñu bëri dañuy codifier mais dañuy jëlaat chambre yi tey tey boo demoon codification nga yor sa 5000 francs dangay am chambre. te pourtant dañuy gis des centaines d' étudiants yuy demal pavillon A rek nga xool dafa doy waar li ma lay expliquer. te loolu nga baal ma sax toujours euh, damay gis boo nekkee université ci biir. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni dañ ko waxta dee. ñoo xamante ni dañoo cartouché université. Mm-hmm. ñoom au lieu ñoom ñu génn bàyyi fa ñiy door a ñëw. Mm-hmm. ñoo fay nekk boo tollee li ma gën a métti ngay ñëw ñoom dañuy wat. ba mhm. pare di fanaanoog étudiants yi door a ñëw mhm. ci biir chambre yi jël ko codifié mhm. boo waxee ñu naan la grand ndax da ngay watu ñooñu ñoo fësal pavillon yi ba pare buñ dikkee Euh, bourse yi bu delluwaat tuuti ci bourse yi bala ñoo ñëw ci dëkkin bi mhm. ñoom des fois bourse day génn mhm. nga dégg bourse génn nga daw xale bu jigéen xam nga maanaam day néew kartan doole mhm. pour euh, par exemple buuxante bi mu ñëw loola la am la yaakaar mu ñëw pour dëkk nga ñëw ni ko euh, yow ba ma joxee dix mille francs ma fexe ba buuxantel la jël sa bourse

déjà chambre ni ngui koy da nga gis ko xamantene dalay wo lay de côté ne la légui andil ma cent cinquante ma jox la chambre mhm. sinon 150 000 ma jox la lit mhm. mais pourtant lii bobu amna ki nga xamantene moko momone mhm. ani kooku man néna étudiant étudiant bu nekké dans de mauvaise condition rek ñom ñoo leen fa duggal waye étudiant ci bopam bëggul dund fu metti xam na solo comme mm-hmm. ni ñu ko gisee munuñoo comme ni ma ko waxee woon saa sànq étudiants yi munuñoo ñàkk génn ci mbedd yi di di taal pëna faaw ñu def ko mm-hmm. te saa ñu ko defee dañoo sës nag saa ñu ko defee dañoo te nit ñi lu bari dañ daan bourse la ñuy xeex bourse la ñuy xeex mm-hmm. te étudiant talul sax loolu étudiant talul loolu maanaam jàng la euh, tal mais bu demee ba nga xam ni fippu na Euh, wàcc ci mbedd mi di taalipone wala muy mm-hmm. baare université mm-hmm. c'est parce que dafa sës te sës bi amul fenn fu mu ko jooytu loolu noonu la ko mën a defee mm-hmm. xam nga liir tey nga baal ma ab liir tey euh, bu jooyee li mu mën a faj euh, problème am mooy jooy bu jooyul kenn du ko dégg mm-hmm. mais tey jii man bu ma xiifoon ñëpp dégg ma mm-hmm. mais liir nan la mën a lañ mën a xamee ak xiifam mu jooy kon étudiant bu jooyee rek daa sës dëgg la ndax ni mu ko waxee jàng moo leen yóbbu université mais nag jàng dafa am ay conditions yu ñu lay teg pour nga mun koo def ndax affaire bopp la te boo demee xiif yaa ngi koy wax sànq doo mun a jàng boo amul foo dëkk yaa ngi nekk sa bagage ñu ngi si couloir bi nga war a jàng war a xalaat ndax nekkuñu di sàcc samay bagage du mën a ne kon ñiy wax mbokk internet seetaan ak autorité yi ak marito ñaan wala boog su ma neexee ma ne ak monsieur Macky Sall mi nga xamante ni mooy président de la république jot na ñu xoolaat condition yi nga xamante ni nii étudiants yi ñu ngi koy dund ci biir université bi ndax nag ku nekk boo ko xooloon ci sa bopp rek doo bëgg sa doom di lekk lu bon mu leer la ne li muy lekk am na luñ ci def doo bëgg sa doom liggéey ba pare ñàkk duñ ko ko jox

ngay jàng ba pare di am copain boo xamante nii day toog ngay ñëw di jàng mu lay déranger wala soit ngay jàng ba pare keneen ñëw toog di la déranger parce que moom danañ sama yoon néew ci te boo waxee maanaam boo waxee ñu ngàbb la wala ñu la yow yaa soo tu te prends pour kii donc étudiant buy jàng te njàng leneen dafa fiir olof da koo wax te li mu wax lu am solo jàng dafa fiir mënoo ko boole leneen gis nga am na koo xamante ni mën naa dëkk mu toog di jàng

fekk étudiants yi di grève mhm. mu ne ma yéen déjà da ngeen fuy ma ne ko waaw boo ko waxee mën na am mais lu waral loolu mhm. mu ne ma tey dak ndakaaru ba mu daj mhm. koo fi gis koo xamante ne bu yeewoo maanaam ndékkam añam réeram du frais lu mot cinq cent que ka na ko gis dak Dakar ma ne ko loolu amul mais déjà xam nga université ma ne ko kenn dëkku fa amul ku suñu taxaw ne sama papa ngi nii ak sama yaay ngi nii université te déjà la da am ñoo conditions yi dañoo manqué. Mm-hmm. calvaire calvaire calvaire bëri Sénégal trop. Mm-hmm. déjà am ñoo xamantene na dans de bonnes situations. Mm-hmm. te déjà bourse bu ñëwul rek. problème problème mais xanaa bay na balaa ngay dem en di daa nga lekk ba suuf. bien sûr sinon xam naa boo ma nee Ndioufène yi tamit dañu tëdd seen table yi rek. bien nelaw léegi boo ñëwee si envie ba léegi dafa doy waar. da ngay gis sa da ngay jékki di def cours ba gis ku xam. Mm-hmm. ndax lan mm-hmm. tàngaay. Mm-hmm. ventilo yi duñ dox. en plus sa affaire bi dafay xat trop. ak voilà parce que boo ko xoolee ma jox benn exemple rek actuellement nii mu nekk. fac droit mhm. ak euh, FST fac science chapiteau mhm. chapitre mhm, déjà bo gisee c'est kii seen amphi yi dañ leen defar mais ba légui paré buñ donc dañ dañu obligé dugal leen ci ay chapiteau kilim sax ça n'arrange pas déjà kiy jang ba xam est-ce que déjà concentration mën na pas concentration du fa am doy na waar doy na mm-hmm. waar ñoo ko déggandoo en ah, problème mu yaa ngi noonu lii moo leen metti moo tax ñiy taal pëna lii moo leen metti moo tax ñiy grève waaye nag day am ba tey revers de la médaille kon dinañ ñëwaat ci li ñu metti ñun ci suñu biir ñun étudiants yi buñ ko xam naa temps bi tey moo ñuy xoj mais beneen kaas dañuy ñëwaat ci li metti étudiants yi ci seen biir maanaam doxalinu étudiants yi li ci metti seen i moroomu étudiant dañ ciy ñëwaat ñu leen di jox rendez-vous très prochainement ci seen beneen émission Braille ak Icas di jaajëfal sama mbokk chroniqueurs yi di jaajëfal internautes yi ñuy teewlu ci Sénégal TV jaa ngeen jëf